waaw dafa mel ni que ni jot nañu résultat yi nga xamante ni kii di Barthélémy Diaz bureau de vote bi mu nekkoon résultat yi wadd na. alors euh, bureau numéro 2 moom moo dend ak bureau bi Barthélémy Diaz voté. bureau numéro 2. waaw moom moo génn. Mhm. Khalifa Ababacar Sall 70 voix. 70. 60 70 voix. d'accord pour Khalifa. Amadou Ba 77 voix. pour Amadou Ba. Bassirou Diomaye Diakhar Faye deux cent dix huit voix. deux cent dix huit pour. Bassirou waaw waaw ñi ci des zéro un deux. bureau numéro deux. ñu xaar bureau numéro un bi parce que boobu moo dend bu baax bi. voilà et euh, oui. Lalla on voit que tu nous signales ici que Bassirou Diomaye Faye a battu Barthélémy Dias dans son bureau, de vote. je veux dire. voilà. est-ce que foofu les résultats sont disponibles. alo est-ce que yaa ngi may dégg am. oui ñu ngi lay dégg Lalla. allo. oui Lalla ñu ngi lay dégg. voilà bureau numéro un. oui. Mermoz Sacré-Cœur. oui. mooy bureau bi ah bi Barthélémy Diaz voté. d'accord bureau bi Barthélémy Diaz voté oui. voilà donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye deux cent dix-huit dix-huit. Mhm. Khalifa Ababacar soixante-dix voix. soixante pour Khalifa. Amadou Ba 77 voix donc Barthélémy Dias dañu ko battre si fi nga xam ne moom mooy bureau de vote d'accord donc yaa ngi Mermoz Sacré-Cœur. Ah. Euh, centre bi ban euh, le nom ban centre la alors lan la ci tenk voilà je ko mën nga ko résumer foofu oui ah. oui bu fekkee am na euh, centre bi nombre d'inscrits. nombre de votants et les résultats. voilà donc c'est. Bassirou Diomaye fay quand même qu'il est bas là-bas. ci mhm. euh, euh, bureau de vote bu Barthélémy Diaz. Mhm. Euh, li ñu mën a retenir mooy. Bassirou Diomaye Faye a obtenu deux cent dix huit voix. deux cent dix huit Amadou Ba soixante dix sept voix. Khalifa mhm. Ababacar Sall soixante dix voix. et ce qu'il faut retenir mooy que Bassirou Diomaye Faye. a battu tous ses trois principaux opposants wala trois principaux adversaires politiques dans leur bureau de vote. il a battu Amadou Ba. a battu euh, Barthélémy Diaz et il a battu euh, Khalifa Ababacar Sall. Barthélémy Diaz, Khalifa Ababacar Sall et Amadou Ba battus euh, dans leur propre bureau de vote par, par Bassirou, Bassirou donc loolu mooy. les électeurs sénégalais ont les décidé. résultats oui. qui nous sont parvenus actuellement là où euh, nous vous parlons donc depuis HLM Grand Médine depuis Mermoz Sacré-Cœur Euh, depuis euh, Grand Yoff donc résultats yi nga xamante ne bàyyoo na ko. bàyyoo na ko des résultats provisoires. voilà des résultats provisoires. issus des PV des différents bureaux de vote. signé par le président du bureau de vote donc suñu ay euh, ndaw photo ko. yónnee nañu ko en même temps aussi taxaw fa ñu woo leen téléphone ñu jàngatal ñu li nga xamante ni moom moo nekk ci affichage ba donc les résultats yi nga xamante ni moo tukkee foofu la ca HLM Grand Médine tukkee fële ca Mermoz mhm. tukkee fële ca Grand Yoff waaye aussi les premiers résultats yi nga xamante ni ñoo tukkee fële ca Touba dégg nañu ko les résultats aussi yi nga xamante ni ñoo bàyyeekoo fële ca Ziguinchor les premiers résultats que ni amaguñu euh, les résultats globaux parce que loolu aussi c'est très important donc vers euh, la fin de la soirée on aura les résultats euh, globaux donc ko defee ñu mën ci def euh, vraiment jàngat bu gën yaatu mais du côté de Thiès aussi maa ngi doon wax léegi am naa fa aussi quelques résultats yoo xamante ni ñëw na le temps que nga may xoolal ci téléphone bi. Euh, il faut il faut am que euh, les résultats yi ñu jot a amagum. Mhm. les tendances se penchent en faveur de. de Bassirou Diomaye Faye et de manière générale en faveur de de Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko à lui seul. plus c'est euh, face à ses opposants réunis je veux dire à ses adversaires politiques réunis il, il les a battus résultat provisoire. voilà des résultats provisoires yoo xam ne voilà effectivement dina topp le kanaal bi nga xam ne moom la war a topp. Mhm. ba keroog ñuy am les résultats définitifs yi nga xam ne conseil constitutionnel moo ko war a joxe. Euh, bu ñu jógee ci loolu on peut aller euh, am euh, au niveau de du nord. Mm niveau du nord à Matam. Càmbe Baye. des résultats yoo xam ne du surprendre kenn. Mhm. Bassirou Diomaye Faye cette fois-ci est battu par Amadou Ba qui obtient 307 voix contre 19 pour Amadou Ba. C'est important pour pour pour Bassirou euh, C'est dans la région de Matam. Matam. Euh, Thiambé Baye. D'accord. Voilà Thiambé Baye dans le bureau dans le centre de vote de Thiambé Baye. Amadou Ba qui bat. Euh, Amadou Ba qui bat Bassirou Diomaye Avec combien de voix? 307 voix. 307 voix pour Amadou Ba. Pour Amadou Ba. Bassirou Diomaye Faye 19 voix. Et 10 19 voix pour. Euh, Bassirou Diomaye Faye. donc Matam euh, am nañu des benn résultat donc bu bàyyeekoo Matam du côté. Mm -hmm. euh, du nord donc ça c'est important aussi bëgg nañu am aussi euh, centre bi. beneen bu ma lay joxaat. Mhm. fii c'est par contre Apodor. à Podor euh, centre Hamad Ba. Mhm. bureau numéro 4 fii Bassirou Diomaye Faye moo ko moo ko gagné avec 154 voix Amadou Ba qui obtient cent obtient 124 voix. Podor ah. oui à Podor. donc c'est un bureau pas un centre ah. c'est au bureau numéro 4. du centre Hamad Ba. d'accord en attendant ñuy les résultats donc du centre. oui bu ñu boolee tous les bureaux. certainement nga xamante ni moo nekk foofu la. voilà dama dama bëgg a dem par contre euh, à Padoua. Mhm. à Padoua là-bas euh, am nañu résultat yoo xam ne am na fa. Mhm. Euh, Diomaye Faye on n'a pas encore j'ai pas donné ces résultats parce que amuñu le numéro du du bureau de vote. nombre d'inscrits et tout ça. donc damay dem plutôt à dans la commune de Wakhinam Wakhinane Nimzat. à mhm, Guédiawaye école bu Darou Khan. bureau numéro 2 foofu Diomaye Faye moo gagné avec 224 euh, voix

Makhtar Ngom 57 euh, voix Amadou Ba 28 voix mhm. Pape Djibril Fall 2 voix ñu dem ci département bu Kaolack ici au Sénégal commune de Ndiafate mhm. centre de Koutal foofu au bureau numéro 1 on a 336 euh, votants euh, Diomaye Faye obtient Amadou Ba obtient euh, 106 voix mhm. pour le bureau numéro 1. Le bureau numéro 2, euh, on a un nombre de votants de 319 euh, euh, votants, oui, 319. Euh, Diomaye Faye obtient 168 voix, Amadou Ba 120 voix. Mmh. Au mhm. bureau numéro 3, 340 euh, votants, Diomaye Faye obtient 179 voix, Amadou Ba 121 voix. Mmh. Au bureau numéro 4, enfin, euh, nombre de votants 322. Diomaye Faye obtient 164 voix, Amadou Ba euh, 123 voix. 123 voix. Euh, donc, Bokhole dans le centre de Koutal, euh, dans la commune de Ndiafat, euh, Bassirou Diomaye Faye bat Amadou Ba dans tous les quatre bureaux de vote. d'après les résultats provisoires yi nga xamante ni donc moom moo nekk duñu parvenir benn benn ci ay centre de vote yoo xamante ne aussi dépouillement bi aussi donc ba léegi aussi noppeegul. am na yoo xamante ne am na yoo xam ne des na. mais bu ñu euh, à l'île de Gorée. Mhm. dans la commune de de waa Thiès maa ngi ñëw ci yéen maa ngi jot résultat aussi Thiès yi. ba léegi ci centre boobu la di Modakan. Euh, je je termine peut de Gorée. Mhm. foofu euh, au bureau numéro 135 pour Amadouba. Au bureau numéro 3, euh, Diomaye obtient 191 voix contre 137 pour Amadouba. Fof également, euh, dans les deux, deux, bureaux de vote, euh, Bassirou Diomaye Faye euh, ba Amadouba. Euh, à Grand mm -hmm. au centre Issa bureau de vote euh, numéro 5, Diomaye obtient 228 voix, Amadouba 94 voix. Mmh. Voilà donc pour les résultats que nous avons pour le moment. Peut-être d'autres vont, vont, vont, venir euh, mmh. dans quelques instants. Pourquoi euh, nga nous ne Jotali, nous internet. Mais pour le moment, euh, Amadouba euh, ah, pardon, euh, Bassirou Diomaye Faye est mm largement en tête selon les informations, les résultats que nous avons euh, reçus et selon les résultats provisoires issus Euh, des PV des bureaux de vote. merci beaucoup Abdou Khadra Koulibaly ñu dem du côté de Thiès toujours euh, fële ca Cité Lamy mais cette fois-ci aussi beneen centre sànq maa ngi woon ci Modou Kane ñu ngi ci PDF bu Cité Lamy bureau numéro un. Euh, bi nga xamante ni au total il y a 305 inscrits donc 197 votants mu am 7 yoo xamante ni Euh, vote nañu donc hors bureau ak zéro bulletin nul donc au total 197 suffrages valablement exprimés ki nga xamante ni moom mooy euh, Bassirou Diomaye Faye donc moo am 94 voix ki nga xamante ni mooy Aliou Mamadou Dia am 11 voix Idrissa Seck am euh, vingt 28 voix ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba am 51 voix Daouda Ndiaye am 2 voix Thierno Alassane Sall am 4 mu nekk bureau numéro un donc centre PDF de Cité Lamy ba léegi ñu xoolaat euh, bureau numéro 3 bi aussi sànq maa ngi koy wax euh, ba léegi euh, no ci même centre bi PDF bu Cité Lamy 302 inscrits 186 votants 9 votants hors bureau zéro bulletin nul 186 valablement exprimé ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye 90 voix kii di Thierno Alassane Sall 3 voix ki nga xamante ni moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne 2 voix 31 voix pour Idrissa Seck 42 pour Amadou Ba. Euh, deux pour Boubacar Camara euh, Khalifa Ababacar Sall deux voix ba léegi ci même centre bi nga xamante ni moo nekk Cité Lamy centre PDF donc bu Cité Lamy bureau numéro 2 bi wax jox na joxe naa ko léegi euh, mu am aussi beneen bureau boo xamante ni je pense que c'est le bureau numéro numéro numéro 3 waaw moom laa joxe léegi. bureau numéro 2 donc il y a 302 inscrits 182 votants Euh, hors bureau donc un bulletin nul 181 valablement exprimé ki nga xamante ni moom mooy euh, Bassirou Diomaye Faye 77 voix Thierno Alassane Sall 2 voix euh, Mamadou Lamine Diallo benn Alioune Mamadou Dia 11 Idrissa Seck 38 Amadou Ba 45 Anta Babacar Ngom am na 4. Khalifa Ababacar Sall am na deux Déthié Fall am na deux donc fii aussi. bu ñu suivre un peu euh, tendance bi muy diggante ñaari centre yoo xamante ne ci même quartier la ñu nekk muy quartier bu populaire. Mhm. à Thiès donc muy Modou Kane ak PDF dañuy gis que ni ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye en tout cas résultat euh, premier bureau yi nga xamante ni noppi nañu seen dépouillement donc les résultats sont favorables euh, à Bassirou Diomaye Faye et mhm. Thiès on a deux candidats là-bas Idrissa Seck ak ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall taxawal école bi nga xamante ni nag fa la kii di Idrissa Seck voté muy école Malick Kayré Diaw ki nga xamante ni moom mooy Thierno Alassane Sall aussi maa ngi xool tamit ban école la voté ak résultat yi rapidement donc ñu mën ko am euh, merci beaucoup donc du côté de Thiès ñi nga xamante ni donc ñu ngi fa ay journalistes donc des des collègues waaye aussi suñu ay xarit yoo xamante ni ñoo defandoo métier bi ensemble donc rajo ak télé donc bu fii dañu leen di gërëm bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ngeen di bi ngeen di def alors euh, ñu xoolaat feneen Abdou Abdou Khadre Koulibaly mhm. alors euh, n'ont pas encore <clears throat> reçu euh, pardon d'autres d'autres résultats. Mhm. Euh, sinon. Euh, xaaral ma xool côté mhm. côté côté côté Ndiaga Niao ak ki nga xamante